mbokki Sénégal mbokki àdduna ñu leen di ziar di leen nuyu di leen ñaanal jàmm bu baax a baax ma toogateeg sama waa ji sama xarit bi Xaadim baay faal Xaadim Baye faal mi nga xamante ne bii nee naa la lu mu la wax ci làmb bindal lu mu la wax ci làmb jàppal ne loolu la parce que nee naa la ki xam mbojj mi moo moo mën a wax ni dugub ji toll ki fekkee mbojj mi moo mën a wax ni dugub ji toll te xam ngàcc ak mësu suub du benn kii dafa bëre làngal mbër. xam li nekk ci biir géew bi moo tax lu mu la wax ci làmb jàppal na noonu la xaadim maa ngi lay ziar diggante Zarko ak bu ndaw ñu bëre ba pare ma bëgg nga résumé ma combat bi ñaabu ndaw lan moo tax mu perte combat bi Zarko lan tax mu daan gannaaw boo nuyoo ba noppi. Euh, salaamaaleykum mbokk jullit yi nuyu nañ leen seen tur ak seen sant barke maam Serafal barke maam Serafal barke maam Serafal barke njabootu maam Serafal gi yëpp. Euh, Mbaye Babacar. xam nga làmb. du signature hmm. lamb du xaalis hmm. lamb fit ak ngor da ceeb bokk to hmm. ki nga ñemewut doo def dara Zarko mën naa jur xale yëpp moo leen mag téeméeri junne yoon mais lim leen di jaay mooy maa la fit maa la ëpp sañ-sañ loolu la leen ëppale combat bi dem dama cee daanu rek waaye bi arbitre ni waaj a génn seen diggante. Mm-hmm. ñaamu ndaw naan sarko na ma may distance. waaw arbitre bi wax ak moom. waaw waa ko ne daanu nga naa ñeme woo ki ngay bëreel. Mm-hmm. sa yoon mu ne ci loolu. waaw yal na ngeen tegat nay tànk arbitre soufflé. Mm-hmm. xele nga. yow kay moom mag mi moo war a wax ne na ma booy bi may distance ndax ma mën a lewaatoo waaye boo toogee di ko def yow mii xele. Mm. da ngay perte bi. ñi la andi sax boo noonu am na ci ñoo xam ne dañoo découragé xam naa ne. te duñ la ko wax. après dinañ loolu gisoon naa ko ci benn combat Yékini waaw mu naan fii kay adversaire am naan fii laay taxaw mu naan du ma taxaw taxaw fii Père naan Père Robert na ko wëlbatikul jàkkaarloo xel mi. daan ko di def Yaxya Diop Yékini la. waaw bokkut sax ba tey Mbaye Babacar. ok Mbaye ñii dañu ne kii fii lay jàkkaar lool kii fii lay jàkkaar lool. loolu xewu dem ci Sarko ba ñaabu ndaw ñaabu ndaw dana mun Sarko arrière. Ah, arrière bi may ko distance xëccoo wuñu maanaam ah, xeble de. xëccoo wuñu xeble de maa ngi taxaw di xool. waaw dana maanaam mu may ko distance. ma ne ko daanu ndax ñeme woo ki ngay bëreel. lu ci sa lu ci sa yoon. arbitre kay. yow kay mais mais doo gis avant combat bi ñaabu ndaw ñeme ko trop. waaw loola lépp. mën naa ne waaye ñemewu ko signature ñaa bu ndaw di ci kawam. waaw loolu nit ñi la nit ñi la ndax. bëre du fa am waaw bëre du am nit ñi la. Sarko dañoo dawandoo ci géeju baanam parcelle man papa Mbeng man maa ngi woon rue 31 angle 30 Baaku Mbay Sarko xam na ko dina dégg lii may wax Baaku Mbay. rue 31 angle 30. oonu Seexu Yàlla bi Asan ak Oseynu Ibu Caam maa dooki ca ca Medina rue 31 angle 30. lii may wax du tey xele bu fekkee ñi ne woo maanaam mag mi ngay bëreel bul jël avance am. kon da ngaa bëgg wax ne ñaa bu ndaw ñemewul. Zarko barke Cheikh Rafal ragal koo tax mu daan ko. mais est-ce que nekkul ne ñëw rek. non Zarko de ko doon dàqe. ci biir géew bi Zarko dafa waaf dafa. noyé ci kawam mais mais mbër mën nga ko mën ngaa dox ci kawam muy arrière te fekk ragalu la. voilà ragal nag. stratégie ragal moo feeñ dem ndax Zarko bañ ba waay ragal a feeñ dem waaye loolu ñun ñëpp ay bërëkat lañ waay ñaa bu ndaw li nga def dem bokkut ci làmb yow xele nga dañ laa may sance jallal bu fekkee dañ laa may chance mënoo jàll bul bul ñaan chance mooy noonu la demee amul leneen gars yi weddi nañ ko de buñ la ko waxee buñ la ko weddit ñi nga àndal dem ñu àndal ci làmb ji waat barki Seexul Xadim bi Zarko doxee sa kaw weddi nañ la non nañu waxante dëgg nangu Zarko di dox di non non non non de la vie warta am daa war waay yow ñaa bu ndaw ñaa bu ndaw boo ko bosee meew geen waa xele la yow Zarko ba muy doon Zarko ak léegi Zarko. waaw Zarko da ba doon bëre Zarko ñaata at lay bëre. Zarko bëre na fekk Sa Thiès. Ah, ñaata at la ba mu wéree Sa Thiès nombo. bëre na fekk ah, ba mu wéree Sa Thiès nombo xam nga kañ la. waaw loolu ñaata at la. na de. boobu est ñaa bu am na ñetti combat. waaw xele bu ndaw fere. boo bësee meew génn ngay dawal ngay dawal mag mag moo xam bu ngeen dawee dalante bu moytuwul maanaam lay miti ci mag ma lay jóge loolu du ngor. loolu du ngor signature lekk xaalis taxut maanaam mag di la gëdd ngay dox ci ginnaaw xale du dox xale du arriéral mag waaye mbay baal baal loolu. ban erreur la def ci combat. erreur bi mu def maanaam wut maanaam ngor ci combat bi ñaabu ndaw dina ma dégg ay mbokkam dinañ ma dégg estafam dina ma dégg. Mhm. maanaam dafa waroon a teg goon. Mm, teg goon arbitre ne roccet loxo bi mu taxaw. kan kan kan kan jël li mu moom dem. waaw waaw ñu bëri dina leen Zarko ku ko ku ko ku ko bëgg daan il faut nga xeex ak moom. affronté. waaw woon ko ne doo dara. mag nga jeexal nga boo defu doo daan. déedéet xale yii may gis nii Zarko lan la ëppalee xale yi ba di leen daan parce que. mais dafa am bi mu demee Espagne ba ñëw gis nañ bi mu demee Espagne ba ñëw. dafa tukke woon ñu ne Zarko ñu ne bàyyi na làmb waaw mu dem dafa ay ay ñaari at ñëwaat. Hmm. mais bi mu ñëwee ba léegi daan na fi juróomi juróomi mbër. léegi voilà merci beaucoup ba Zarko ba muy. waaw daan na fi juróomi mbër. ba mu duggee ci biir mbokkam. ak biir famem ne leen damay génn. ñu ne ko waaw defal ko ñaan sottil ko ndox ci buntu kër gi. Hmm. kan la wax ne bàyyi na bëre. dafa dem am fu mu ruq bu mu ne. waaw nekk faak lam fa nekkee. boo ne cëpp ci dëkk bi. Mm. ñu jox ko yow yaa ko compté nga ne am na cinq victoire cinq vingt yu leer nañ. yoo xaman ay xele lañ mu moon leen a jur ñoom ñëpp. Mm. comme ci tool ay at amut. Mm-hmm. maanaam ruq la nekkoon rek ndax dafa am fu dafa am fu benn Baye Mandione la ci xaw a. Baye Mandione ay at waaw Baye Mandione la ci xaw a tolloon ay at maanaam ñu doon benn génération. waaw presque waaw Baye Mandione njëkk ko ci làmb. Mm-hmm. lii mm-hmm. waaye xele yii. xele de mbay guy gi. oh waxoon naa la bu ndaw yéen kayre. mënuñ ko ñëpp a ngi ci biir. mënuñ koo yëngal dugg nañ ci bato bi ñeneen sax dinañ dugg ci bato bi. Oh. wallaay ñeneen dinañ dugg ci bato bi. Sarko démb li mu doon def sax ci li njëkk a gaan déstabiliser booy bi. ci la bokk. bi ñu taalee euh, fimo seen yi. waaw xam nga man xam naa fi ma seen. <laughs> ndax dama doon dem Ndakaaru ci eh, stade bi. football. wala ko yëg combat Yékini. waaw gars yi taal fi ma seen yi. waaw bi fi ma seen yi gis naa Sarko di def séddu Sambour. waaw ay séddu Sambour yu am pënc yu am caac. waaw yooyu ci la. waaw yooyu ci la ndax yooyu noonu li xoqatal booy bi. ak li a ragal loo booy bi Sarko loolu ci la bokk. to ay supporteurs am xamuñu ko. Mm. ndax bëre du question ñëw rek lewaatoo bëre da ngay am caac mhm. te Zarko bu solee tim yi dafa am caac non dafa am caac waaw am na caac de mhm. lu leer laa lay wax ni tim lay dawee mhm. moo tax ni nga gis ni suuf ga oyo fut tim lay dawee ci géej gi non da koy da koy entraîné te tim daal bu diis nag boo koy entraîné sax suuf du oyof to xale yi bëgg nañ lu yomb mbay li ci lalu lépp xale yi bëgg nañ lu yomb mbër day reer tëdd mbër day reer tëdd ndax am na nooy tàkk dëgg dëgg dëgg dëgg lislaam yàlla da lay bëgg mm-hmm. iblis bëgg la mm-hmm. jigéen bëgg la mm-hmm. dégg nga li ma la wax boo takkee dëgg dëgg dëgg yàlla da lay bëgg iblis bëgg la jigéen bëgg la yow yaay xool ban nga choisir gauche la ak droite boo ci jël bàyyi bi ci des waaw bu fekkee da ngaa doon xale bu ndaw commencé encaisser million am na ci xale yoo xam bu ñu commencé encaissé yi million maanaam amatuñu conseil taal oto wala nga sa xarit di la dawalal nga toog ca wet gane laa ilaha illallah bu fekkee maanaam àndoog ay teggiin jéggi borno yi loolu laa am lu ma lay wax ci combat boobu. mais mais bu ci biir combat bi dañu gis ne wax nga ko sànq arbitre dafa soufflé Zarko dox ci kawam. dóor ñaabu ñaabu ndaw reculé. dóor waaw dóor. am na dóor bu mu pan. mais mais mais ci daw jël bi. ci daw jël hmm. man damaa gis ne ñaa ndaw moo njëkk a sëgg mais Zarko moo moo njëkk a àgg déedéet maanaam Zarko dafa xam ne ñaa bu ndaw mi ma kaw la jëm waaye bàyyil ko man def ko man kuus konrong laa gudduma ndax gis naa sax ñaa Zarko gore ndeysaan dafa yóotu dóor ba ndax jotut ndax booy bi da ko sut sa trop hmm. waaye yóotu ba dafa dal fa dal pang waaye maanaam mënuñoo njëkkalante suuf bi ndax gisoo seede sàmbur yi ma doon wax Zarko dafa moom boppam seen yi sax da koy diri ndax diri dem gis naa de sax muy diri seen yi mel ni ku jaar bàngoo mel ni ku jaar bàngoo waaw sa dëkk ba waaw waaw waaw Dakar bàngoo Zarko yooyu da ciy baax xale yi seen fitness na de walaay du waxi caaxaan bilaay bu ma ko waxee mën nañ ne xaadim commentaire ya lu ne mën nañ koy wax waaye seen fitness na góor gu am fit du arrière bilaay du arrière ar bi day wax ak moom boo sonn du nangoo arrière ku am fit wu toog boromam du reculer bilaay buy dee sax du reculer barki seexul xadim nañ waxante dëgg mbay lamb laajut loolu lamb laajut ay daw da ngay perte équilibre te yi ñëw day ñëw ak sago nga xam na ne ñeme woo ko lii ma fa feeñ dem combat combat ba amul commentaire ñàkk a ñeme la rek loolu dong laa ca gis man waaw amul commentaire ñàkk non non non ñàkk a ñeme la amul commentaire mais mais Zarko euh, léegi fan la jëm kan ah yow mi nga xam ne yaa nga fa woon dem. waaw foo xalaat ne fa la jëm. Ah. du dem nga seeti Sarko maanaam comme yéen maanam taskatu xibaar yi da ngeen di dem. maanaam bi làmb ji jeexee. Hmm. nee nan kombaam ak bébé Diène taxaw na mais bi làmb ji bi bi bi ñu jógee stade man hmm. dem naa këram. Hmm. mu ne ma sama komba ak bébé Diène taxawul. bébé Diène man. bébé Diène benn. bébé Diène bi doon bëre bëre simple. <laughs> waaw bébé Diène moom tamit rek Sarko. Eh. Sarko de ko raw fi mu toll nii. waaw. waaw loolu. du ko nangu sax ay stafum sax ah eh, Sarko nag bu leen foog ne maanaam rabo al na rek Sarko nag VIP la léegi nag waaye bàyyi len loolu. na gaa yi baal jege gaa yi gaa Sarko ngi ci course bi di. bilaay dina ma dégg mu ngi ci course bi. staf bi na xam ni ñuy waxtaanee. yow bon yow mi nga xam ne yaa tippoo Grand Yoff yaag ma Saalum ah, Saalum. Mm-hmm. yéen a moom Grand Yoff. Mm-hmm. borom sol set be waaw borom a ko moom de. waaw fi mu toll moom kenn du ko xañ moom. na ngeen xam ngeen di jël bul jël lu la amoon njëriñ waaye sar yow it nag bu ko jël ah yooyu noonu maanaam da lay tardeel sax yow kay dem nga demal rek demal rek da ngaa gis mu dem ci kaw ñi ne ci kaw ko cop fit yeewoowu fa billahi ndax sar ko maanaam ay mbokkam fi mu toll nii ñu ngeek moom ak dëkkandoom yi hmm. ak maanaam xamaaleem yu baax yi hmm. ñu ngeek moom hmm. nii lii la fulla daal moo jaay Dakar teg ko fi continuer waaw gars yi dinañ ñëw di. gars yi dinañ ñëw di mais yi muy daan lu leen leen ëppalee. daa aw fit dana leen di wan agum li ma gis agum waaw ah, waaw man de li ma gis agum ci yow boo ko teggiwu dina jàll de. Hmm? waaw ah mbay yow nag am na loo xamante ne aw fit a koy maye di aw fit ay maye yenni di fit mooy maye yenni de xanaa xaman ne Serigne si sax boo gisee maanaam ñu toll fi ñu toll fit la ak ngor xamoo loolu. waaw fit de loo gis da caa baax. waaw waaw waaw ngor xanaa xam boo goree am fit fit li ko lal dafa garaaw. ngor moo jiitu fit. moom fit waaw fit. Mhm. du ñu luyeel nit. déedéet du gàllaaj gooy takk. déedéet. fit dañ koy am naturel. Ah, dañ koy judduwaale de. billahi mbay Babacar langal nga ma. waaw langal naa la man sax nëmba yi may takk nii ñu koy. gis ma bala koy waaw ñoo nëmba ngay gis ma koy takk bu may béré ma ko takk. waaw ndax nëmba maanaam damay ñëw rek jël kuuru Baay Faal gi yaa ñuy moom Faal yaa ñuy moom bu ñuy dund ak bu ñuy dee yaa ñuy moom. dóoru ma mel ni maanaam ku ñu sotti ay yàmb nag foo boo ñëw ma ñëw ñëwal rek ñu daje loolooy làmb. mais mais looloo manqué ci xale yi léegi. a ah, déet maanaam bu fekkee da ngaa bëgg a doon mbër bëgg a doon <laughs> musique seeg yooyu noonu <laughs> doo affronté <laughs> xar kanam gi boo nangul mu naa ci nangu woo bañ dem. Mm. doo affronté jaal moom bu fekkee yaa ngi koy sóoraale barke Cheikh Rafal du yàgg. mais xaadim. Hmm. dañ ma koy laaj ñu bëri. Hmm. Eh, mbokk yi ñuy seetaan naan laajal ma xaadim. Hmm. combat yi mu jot a bëri ban combat moo ci gën a metti parce que dégg nañ sa combat booy aan mais je pense bien que boobu gën a cee metti parce que boobu yaakaar naa jokkoor maa jor ja bëriwul la. jokkoor maa jor amul te maa doon jokkoor. waaw maa doon duma. ba daan sama combat bi gën a métti ci combat yi. bi nga xam ne dañ maa dóor ba ma yëg ko dëgg dëgg dëgg dëgg. Mhm. du bëre dóor. ah du bëre. du du arène. ah mbapat hmm, nguy. <laughs> waaw ndax kurpeñ ba saas. saas gën a ca ginnaaw Touba Ndiarène. waaw waaye la ma jeexloo woon te combat ba it condition jeex damaa daw ba jàpp jaar bi ñuy dem wàcc saret bi topp jaar di ko dàqe di ko dàqe ba jàppal ko sama bopp. dem ca combat sama condition wàññeeku. waaw ñu boole ñu premier tirage noppaloo guma. <laughs> yaa ngi mën longu xam nga man sama mboj mi. waaw booy bi it doon gor. waaw bu ma nee pang mu ne pang ma ne pang mu ne pang pang. waaw na leer na leer pang pang mu pang pang waaw waaw waaw saa bu ma dooree benn mu dóor ñaar. ñaar mu dóor kaat. <laughs> ba ñu dem ca biir géwél ya mu yoxoo suma fa teg ci géew ci sama ndong lii arbitre di ko affectir ma ne ko waaye looy affectir ati kii kii rey ma nga naan affectirement def na ñetti fan muy tàng <laughs> waaw def na ñetti fan muy tàng waaw dëgg neexut Modou Lo bu nguy ñetti fan ñetti fan ngay sant suñ ma dooroon kurpeñ ba di tàng ci sama ndong lii wallahi asim loolu jaar naa fi na leer waaw ku wax sa ndam wax sa defet wax sa defet hmm. macha allah mais mais mais mbaa xam nga ne kontaan naa ci yow non Mbaye Babacar yow dañoo bokk luñ mënta séddoo hmm. Hmm? sama nit nga dëgg la man maanaam moo tax man àndu demb daal nañ ma ñaanal rek ma yàgg ak ñoom maanaam ku may déglu rek nag ma ñaanal ma yàggak ak àndu démb waaw ndax àndu démb maanaam damaa xam li ci ne mag wax na ma li ci ne mm-hmm. waaw man daal bu ma kenn ñaanal leen ma rek ma bañ a fuuy mm-hmm. bañ sa bopp te ngeen ñaanal ma rek may bokk Sidi Ibrahima ak njabootam gi di nekk Baye Fall rek donc barki Cheikh Rafa yem fa man de li tax ma gën laa bëgg lool ci la bokk li nga bëgg maam Cheikh waaw damaa xam ne maanaam waa ji maanaam il faut ñu xam moom mooy kan te ku xamoon puissance am mm. Sidi Ibrahima Fall mm. kon jëg Baye Lalla Fall mm. ku xamoon puissance am li nga affronté. man de wax dëgg ci yàlla maag ñu maag sama ñooñ. Hmm. xam nañ ci dara de. macha allah kontaan.